Abdoulaye euh, thème tay bi nag bu bi nga xamante ne moom la ñuy njëkkee naturellement muy journée mondial bi nga xamante ne moom la ñuy jagleel Bamba wàllub mhm. Mhm. rajo rajo di benn ci média yi nga xamante ne moom la nit ci di gën di utiliser muy également boo xamante ne am na doole bu defar réew waaye am na doole également yàq Euh, fii ci Sénégal euh, bu ñuy taxaw parce que thème bi ñu jël euh, ci ci bésu tay bi mooy rajo ak paix rajo ak jàmm mais ñu gis ni dañu toll foo xamante ne liberté de presse ak liberté d'expression bari na lu ñuy ruumanaat ne reculade ci la ko gën a gën a nemmeeku tey booy xool tolluwaayu rajo Sénégal lan lan ngay def comme analyse waaw Khady tey bu nekkee bis bi nga xamante ne moom lañ jagleel journée mondiale de la rajo Euh, rajo nag nekk support bu am solo boo xamante ne euh, dafay jouer rôle bu am solo si askan. Et je pense bien que jamono ñuy toll amul benn dëkk si àdduna bi boo xamante ne amul rajo. parce que tellement importance bi mu am. da nga gis sax boo demee par exemple tey si France euh, nit ñi ba dañoo génn seen dëkk. ba dañoo génn seen dëkkuwaay da ngay gis ne rajo bi la ñuy déglu pour météo pour mën a orienté wu xam la ñuy. li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy mën a def si journée bi. Mhm. Euh, dama jàpp na nag euh, rajo loolu mooy euh, li nga xamante ne mooy objectif am mooy informer et surtout sensibiliser. Mhm. et dama jàpp ne aussi que surtout nag jamono bi ñu toll muy Sénégal actuel bii nii rajo dafa war a gën a jouer rôle soo gisee sax léegi Sénégal yi dañoo dem ba bëgg encore rajo mu delluwaat fa mu nekkoon mooy peu peu de peu de divertissement. ñu wàññi euh, kii nga xamante mooy musique bu bari bi ñu wàññi li nga xamante mooy euh, xumbaay bu bari bi mais ñu gën a ñëw euh, waxaat nit ñi andiwaat li nga xamante mooy les deux verbes que j'ai employé mooy sensibiliser ak informer et quand on dit informer aussi informer juste et vrai parce que aussi nit ki loolu la xaar mooy information boo xamante du am benn orientation du am benn connotation boo xamante yaa ngi koy yóbbu si wàllum partisanerie te dommage que ñu ngi constaté yooyu dafay am et sensibiliser aussi comme li ñuy def nii tey mooy fexe ba ki lay déglu bu fekkoon sax tey dafa jàppoon lu ñaaw ba mën koo def soo waxee ak moom mu mën koo bàyyi mën a déglu si ne Abdoulaye Mbow la mu wax wala Bamba la mu wala Ibrahima Pouy la mu wax tax na ma gën a xoolaat suma taxawaay et puis man dama jàpp ne nag ñun ba ñuy dugg nag si rajo ba ñuy dugg si wàllu média loolu moo ñu si duggaloon parce que tey dafa am ay références yu ñu si amoon mm-hmm. man personnellement ñi ma gën a dugg tax ma dugg tey si rajo su ma ko bëggee wax parce que tey journée journée bi eh, Ablaye di wax aussi ne la euh, tey Aba daf ma si woo Aba bi nekk TFM no stress sama su ma dëkkandoo la ñu waxtaan si tey toute la journée et ndekete moom mi ngi bàyyi xel grande gueule bi sax nga woon nee na maa leen di suivre te tey daf ma su ñu waxtaan si longuement mm-hmm. man xam nga Ablaye ki gën a tax ma dugg si rajo bokk na si DJ Prince bi nga xamante ne moo nekk RTS ba ma nekkee xale bu ndaw. papa Momo Wade merci beaucoup papa yi Momo Wade. Mhm. maanaam moom on s'est parlé longuement sama sama doyen la dafa may encadré si yu bëri. Mhm. Euh, moom moom noonu ba ma nekkee lu ndaw man dama doon toog suma kër. sax guddi am na benn émission bu muy def mu nekk émission diaspora Modou Modou à la RTS tous les dimanches soir mhm. ma ko doon déglu mu may yee. ma ko doon déglu mu may jàngal. ma gis ni muy amee valeur si micro bi ma gis ni muy waxee. mais aussi si télé. man dama doon bàyyi xel ki nga xamante mooy Sada Kane day sax dem naa ba rencontré wu mhm. dem naa ba toog ak monsieur Sada Kane xamal ko ne ko bon bu ma bëggee télé yow bokk nga si ñu ma orienté parce que dama doon bàyyi xel nga doon waxee et xoola ñooñu ay Mamadou Malaye Diop ay ne mooy euh, euh, Bassirou Kounta nga ne déjà bu gënu RTS man sama papa fu ma doon mënti nekk je me rappelle euh, quand je faisais la classe message et puis man après su ma toogee tey ñu nekk si télé bi ñun jàkkaarloog askan Sénégal dama naan est-ce que ñun ñun ñii ñoo remplacer ñi fi nekkoon non on n'a pas remplacé on ne peut pas les remplacer on ne pourra jamais les remplacer dafa mel ne yàlla ak bu ñu waxul lii rek wax dem parce que ñooñu vertu yi ñu amoon ñooñu valeurs yi ñu amoon ñun ba léegi incarné guñ ko au contraire tey ñun war nañu gën a xoolaat suñu taxawaay gën a xoolaat suñu toogaay souvent nag su ma ko waxee xam nga mon ami Ibrahima boobu du ma sa nangu li may wax mais man <laughs> il faut que j'en <laughs> il faut que j'en parle parce que tey li gën a dommage mooy bu ñu demee tey ba léegi rajo mu dem bay dugg si ay wàllum farfarloo bu demee ba tey léegi rajo ñu koy connotation di ko connecté rajo de l'opposition rajo du pouvoir pour man pour man foofu la problème bi commencé parce que nag saa boo faree fii yaa ngi déranger ñeneen saa boo euh, euh, déranger ñee yaa ngi am ñooy ñooy neexal te pour man rajo war na mën a bokk si équilibre war na mën a fekk nag saa su ne nga gën a jaayante ba gën a nekk si équilibre man de saa su ne loolu laay gën a jaayante su may analyse loolu laay gën a jaayante su may chronique mooy naa fexe ba man ma nekk si si nga xamante mooy ligne du milieu mooy au milieu bi nga xamante ne man duma ma jéem a pensu si kenn mais man naa jéem a wax nga xamante ne sama akulaay taala ñi may déglu ñi may seen xam ne il est équilibré mais nag tey kon rajo tey ñu fi liggéey. mais Bamba est-ce que euh, parce que boo defee comparaison. Mhm. Euh, ñi woon démb ak ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk tey xëy na nga nga jàpp ni que ñun defe nañu lu bari loo xamante ne war nañu ko def mais est-ce que contexte yi benn la. d'accord foofu la est-ce situation yi ñuy dund benn la est-ce que njiit yi ñu yi ñu tombeel également benn la. man j'ai j'ai une forte conviction su ma gëm-gëm mooy les hommes changent mais les contextes restent les mêmes. Mhm. parce que boo xoolee jamono yi nga xamante ne les les les journalistes étaient là il y avait de la politique. Mhm. il y avait des opposants nous nous je vous parle des temps de au temps de Abdoulaye Wade je vous parle de au temps de Abdoulaye avec ki nga xam mooy Senghor. je vous parle de au temps de Abdou ak euh, li nga xamante ne mooy ñi fi nekk je vous parle de Mamadou Dia ak ñi fi nekkoon je vous parle de ces gens là donc euh, amoon na ay opposants amoon na aussi li nga xamante ne aussi mooy ay journaliste mais le journaliste moom si boppam mooy l'homme de presse aussi l'homme qui parle à la radio moom dafa jàppoon ñaari màggam yi li ma fi nekk mooy man je dois être juste et vrai je dois dans l'équilibre je dois aussi faire tout pour que man kenn du xam man fan laa far bu ma demee voté nag dinaa voté dugg si urne bi nekk samay si sama voté boo xamante ne kenn du xam fu ma far waaye bu may wax si micro bi bu wax si bi kenn wuru xam su ma far te dëgg xadi loolu nag dafa changé mhm. est-ce que réellement politique bi mu ngi ambali waaw am na ay opposants am na aussi li nga xamante ne mooy les hommes du pouvoir am na aussi politique ba léegi mais ñii wax ci rajoy télé yi ñoom ñoo changé mbagg ñoom ñoo changé doxalin ñoom ñoo changé taxawaay te dama ne mënuguñoo àgg foofu pourtant on est sorti des mêmes écoles que ñooñu suñu grand yi fu ñu génnee mais ñoom lam lañ jaraloon lañ doon respecté métier bi lañ ci li nga xamante ne ñoom jarul la ñuy xaar lenn parce que nag tey ñuy wax si micro bi ñu bëri ñi nga xaar après li nga xam mooy cause kaay ma waxal la pour nga defal ma alors que ki nga xamante ne micro bi xam lu moo la yaakaar mooy lii nii benn sacerdoce la lii nii benn li nga xamante ne mooy euh, métier la boo xamante yàlla moo la ko nattoo nga toog fi mais waroo say xaar say poste di gonflé wala ngay xaar ku lay tàccu wala ku lay xool ay vues si internet bi wala ku lay li nga xam mooy mais nag bu ñu waxee dëgg tey dem nañ ba léegi am na ay rajo yoo xam ne dañu connoté ay connotation politique la dañuy wax rajo bii moo far rajo bee moo farul bii mooy opposé te loolu pour man loolu rajo bu duggee ba foofu ki ñuy déglu yaa ngi koy orienté yaa ngi koy influencé parce que quoi que l'on puisse dire nous des influenceurs tey jii nii euh, journée mondiale de rajo bi ñuy wax nii lii xew si dëkk bi mooy parparloo bi mooy ñi nekk si camp bi ñi nekk si camp bële nous nous sommes responsables de ça parce que rajo bi bokk na si li tax tey population bi am benn division il faut que ñu def pour premier fait mais il faut qu'on revoie notre copie. très bien alors euh, Ibrahima dégg nañu Bamba moom moom euh, avis bi nga xamante ne moom lañ moom la ci euh, la ci am mais maa ngi ko koy wax sànq xëy na contexte yi ñoom ñoo bokkul il faut pas oublier également que euh, lii mu rajo yi. dafa gën a yokk par rapport à xëy na époque bi mu doon wax mën nga ko wàññi ci ci sa ay baaraamu euh, euh, loxo mais mm-hmm. également dañu toll jamono joo xamante ne bu ñu jëlee exemple bu soriwul rek muy ñun rajo bi nga xamante ne moom lañ ñuy dégloo muy Zik FM ñaata yoon la ñu ko tëj konti rajo bi dañu ko tëj ay yu bari yoo xamante ne xëy na avant doon ñu ko nemmee ko en ce moment rajo yu bari ñu ngi koy dund ci ay jafe-jafe waaw euh, <coughs> xam nga rajo moom pratiquement soo nekk taarixam dafa yàgg trop ndax c'est un mot latin bu ñu wax radius mm-hmm. boo koy euh, traduire en français rayon la lay jox te mm-hmm. quand on parle de rayon c'est quelqu'un quelque chose qui ouvert mm-hmm. ba biñ koy définir bandi ci rajo ñaare bu aussi euh, le rôle rajo loolu aussi il faut ñu xam ko parce que bokk na ci loo xamante ne loolu mooy diffuser information dañuy faral di wax ne la rajo est un moyen puissant pour mm -hmm. célébrer l'humanité mm dans toute sa diversité et constitue une plateforme pour le discours démocratique mm pour le discours démocratique rajo dafa bokk ci liy renforcer démocratie bu dëkk li may faral di wax rek mhm. la liberté d'expression une des socles de la démocratie liberté d'expression bu amee aussi il faut nga ñëw di xool fan ngay waxtaane li nga xam ne moom mooy li war Euh, ñiy wax ci rajo mooy ñan mm-hmm. journaliste communicateur bi nga xam ne day wuti information su wutee information muy information bu vérifiable nag mm-hmm. bu am source bu legal day ñëw ci rajo bi fexe transmetre information bi da koy communiquer askan wi mm-hmm. rajo moyen de communication la buy permettre comme ni ko président lay di waxee le récepteur est le l'émetteur et le récepteur le récepteur c'est le peuple kii l'écoute l'émetteur mooy la rajo donc rajo bi day émettre information bi nga xam ne moom la ko le professeur Abdoulaye Mbow di jox mu koy jàllale di ko jox ñi nga xam ne ñoo ko soxla mooy le peuple donc le rôle de la rajo bokk na ci loo xam ne c'est capital dans un état de droit dans une république ndax information bu ñu munti génnee rek suñ ko bëggee jàllale rek ci rajo lay jaar léegi ban information la ñuy jàllale am na information boobu xam ne day defar dëkk di renforcer démocratie am na information boo xam ne day taal dëkk di jaxase dëkk. Rwanda guerre civile bi amoon Rwanda rajo moo ko andi rajo. la ah, rajo des mille collines. waaw jeex na toog rek wax information bi muy wax rek. sene mhm. Rwanda yëpp dégloo ndoo ko mhm. ku nekk jog génn dugg sa kër ku nekk la nga yaakaar ne moom nga yor. mën naa faagaagal nga génnee ko. Mm-hmm. muy jaasi muy yat muy nangam. geeru Rwanda ci rajo la tàmbale. tey jii geeru Ukraine ak Russie. Mm-hmm. rajo ci am solo armée bu ñuy localiser tuwee ñoom ñi localiser ñoom ñëpp ay rajo la ñuy yor rajo nekkul lii ñuy toog di wax rek ah. Mm-hmm. armée da koy utiliser pour des moyens de communication ñu ko wax talkie-walkie les agents de sécurité dañuy utiliser rajo maintenant c'est un moyen boo xam ne. ku nekk nga ko yor ci d'autres formes ak d'autres manières suñu téléphone yi ñu yor léegi ay rajo la parce que da nga koy yor léegi dugg ci système rajo bi di ci déglu émission bi nga soxla léeg mun nga koo jàllale mun nga si jàllale sa émission parce que boo jëlee sa téléphone envoyé benn audio vocal partagé ko ci presse bi nga xam ne moom nga bugg jàll fa def nga liggéeyu rajo donc rajo day transmettre ay ay ay message mm-hmm. léegi nag tey bu ñuy wax ci tëjum rajo seen TV moom yoo jël pied at bi moom li leen di tëj. Mhm. bari na. at bu ne ma euh, bu nekk man kay <laughs> li ma fi nekk ba tey at bu ne ñu tëj. kay keneen man kay damaa nag léegi nag ñun tamit man daal xam naa ne daal chef moom ñoo ko jël. bu ñu wax moom recul de la démocratie. <laughs> waa régie ñu ngi ma naan ndax du ma dellu fa ma jógee. ndax ma ñëwee ba tey ñu ngi ñuy tëj boo delloo ñu bëri fii ngay toog <laughs> xam nga la lañ war a def. Babacar kii Diagne moom la waree du yóbbu këram mu toog fa dem retraite noppalu ci. weesu na ko de. à la place yow ngay dellu. <laughs> Euh. macha allah ndaw nga tollagoo fooy retraité <laughs> yaa ngi si buntu liggéey bi tam macha allah yaa ngi ciy xarañ Babacar jaañ danga ko doon seetaan télé bi ngay nekk gone. Euh. RTS man ma koy seetaan télé bi may nekk gone. Euh. kenn nag kenn di ko seetaan Babacar Diagne dem na retraite bu yàgg président Macky Sall téyewaat ko fi. Hmm. la mooy rôle. Pourquoi téye ko à la place d'aller en retraite, d'aller à sa passion de retraite Il y a des jeunes qui ils sont plus qualifiés que Babacar Diagne sax laay wax léegi xam nga au fur et à mesure ñuy dem la compétence la performance ak njàng gi jamono ni muy doxee ak technologie nga xam ne ñoom fekkiwuñ ko woon jamono génération gu ñëw rek da ngay gën a performant génération bi nga fi bàyyi mooy suñu maam suñu papa mais teewul dañuy jël seen njàng seen xam-xam boole waalo ko ci Babacar Diagne daa war a dem retraite moo gën muy ñëw di chaque année émetteur seen TV chaque année émetteur u rajo démb tëj na émetteur u Walfadjri Babacar Diagne moo war a tëj émetteur am dem toog këram <laughs> c'est ça il n'a plus sa place il n'a plus sa place des années mu retraité ko donc am na ay jeunes yoo xam ne waroon nañoo occuper poste am tey xañ na benn jeune salaire moom Babacar Diagne parce que poste ba poste nit koo xam ne tollugul ci retraite xañ na benn jeune IPM xañ na benn jeune allocation sociale privilège mboolem bu mu am ci poste bi ñu ko dénk en tant que retraité xañ na ko benn jeune sénégalais bu toog yaakaar ci yor njabootam. et du moom rek le président Macky moom dafa mel ni moom il est champion des retraités Abdoulaye Wade daan na def mais kii moom dafa dajale leen dem leen ngeen toog am ouf de soulagement même si c'est pas eux qui sont nommés soron sauront que maintenant les vieux yi war a dem te mooy yoon mais tey teg rajo même bu dee da ko teg ci ay normes wala ci ay taxes yu lucide ci tax nga war koo tëj mais dama jàpp ne balaa ñuy tëj rajo wala télé war nañ ko réfléchiraat xoolaat ko xoolaat ko xoolaat ko bëgg nga xam ne moo fi sës nga soog koo def parce que heure boo ko defee da ngay euh, euh, entrave à la démocratie à la liberté d'expression entrave à l'état de droit bokk na si nga xañ kii permettre askan wi xam seen réew ni muy doxe bokkoon na ci mais nag toll nañ nag jamono joo xam ne nag aussi quand pratique les textes les règles et les lois bés bu ñu ko pratiquer aussi bu wàccee dina metti parce que liberté d'expression aussi c'est structuré nos radios et nos télévisions aussi il faut qu'ils sachent que loolu rôle dafa bokk ci di contribuer ci Sénégal am jàmm ak salaam mais bu fekkee rajo boo xam ne bés bu ne boo ko taalee dégg nga musiba rek ngay dégg. war nañoo taal fee ñu ngi taal fee war nañoo bomb fee ñu ngi dafa am loo xamante ne aussi ça doit être structuré. Mhm. et doit être mesuré. loolu nag ñi nga xam na ñoom ñooy les président des groupes de presse. yi mhm. moom seeni i ñoom dañoo war a waxtaan ak seen i ñooñ. Mhm. donte nag am nañu seen programme ak seen feuille de route. boo xam ne kenn du leen ko dindiloo c'est normal mais nag liberté d'expression ne veut pas dire que dañuy xool li nga xam ne baaxul ñu jël ko di génne ba di ci yokkaat di ci amut wala ñu xool loo xam ne bu ñu ko waxee mun nañoo gësam réew wala ñu taal réew mi mm-hmm. loolu nag bu ab démocratie demee ba naran taal dëkk nag wax dëgg yàlla nag texte yi ak loi bu ñu ko appliqué mm-hmm. wax dëgg yàlla su boobaa dañuy am dëgg ci kaw rajo yi nga xam ne ñu ñooy diffuser mhm. liy taal dëkk wala liy yàq dëkk donc tey li ñuy wax rek encore une fois de plus on lance un appel président de la république qui avait dit que tant que mu ngi nekk ci magistère am duñ fi jàpp journaliste danañ liggéey sa liggéey ni mu waree ba ba gis bi ñuy jàpp Pape Alé Niang mhm. que mu ngi nekk journaliste euh, euh, président de la république jàpp ñu fi benn journaliste bi ci jàpp waaye tëj nañ fi ñaata yoon ab maison de presse. tëj maison de presse nag weesuwul jàpp ay journaliste tere ab journaliste wax wala ab communicant mu communiqué soo ko ko teree wax rek tere ko ay plateforme rek mooy tëj nga journaliste yi liggéey ci barab boobu yëpp donc loolu aussi dafa bokk ci ay forme yoo xamante ne recul de démocratie lay àddi mais nag structuré ko teg ko ci yoon ay loi di wàcc comme code de la presse ni ñu ko organisé waatee ñu war a xamee kan moo ci nekk ci nekkul ku wàcc yoon ñu teg la ci yoon moo war mais Sénégal nag dafa nekk dëkk boo xam ne boo wàccee ci yoon bu ñu la tegee ci yoon gars yi créé ay manipulation ak ay fake news créé loo xam ne bokku ci pour pousser la population à la révolte et c'est ça qui doit mm-hmm. c'est important euh, et en profite également am une pensée à ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi groupe euh, Walfadjri di leen masawu bu baax ci li nga xamante ne moom moo leen dal muy lu ñu lu ñu tàmm ñun Abdoulaye. lu waaw euh, dëgg la euh, defe naa ni euh, balaa sax may dugg ci loolu. Mhm. il faut quand même ñu xaw a def tuuti du ma ne précision. parce que tamit bamb lu ma yëpp mënu ma si mënu ma d'accord <laughs> parce que itam Ibrahima Pouy boo jëlee rajo télévision yàgg na yàggut. Mhm. parce que la rajo c'est dans les années vingt. la lañ ko lañ ko créé. la télévision c'est dans dans les années trente boo koy xool si la si la si la njëkk génn kon boog liggéeyu média ak liggéey taskatu xibaar. dafa nekk liggéey goo xam ne dañ koy pratiquer depuis des siècles boo jëlee li nga xam moo di presse écrite di ndayu lépp li nga xam ne liggéey taskatu xibaar la boo jëlee référence bi comme France premier journal bi ñu considéré comme mooy premier journal bi génn France mi ngi fa génn atum 1643 sous le magistère du roi Louis XIV et du cardinal de Richelieu et journal boobu mi ngi tuddoon La Gazette à sa une li mu njëkk a génne c'était l'exécution de Galilée qui disait que la terre était ronde voilà 1643. carnal voilà voilà voilà donc donc booy xool voilà booy xool donc presse liggéeyu presse du léegi la commencé liggéeyu presse xëy na dafa gën a duuf jamono ji donc de ce point de vue là damay jàpp ni boo ñëwee au Sénégal tey di boo soxla événement yoo xam ne dafa xew diggante 1960 ba 1968 daanaka wala ba 70 boo demee aux archives nationales journal ba ngay gis boo xam ne moo lay mën a fàttali jamono jooju la fi xewoon. Hmm. c'était le journal Paris Dakar. bien sûr donc fii li nga xam ne mooy li fi jiitu si wàllu média au Sénégal te moom ko c'est l'agence de presse sénégalaise créée en 1959. Hmm. suivi du Soleil dans les années 70 ensuite de l'office des radios télévision euh, des radiodiffusion télévision du Sénégal du ORTS. donc de ce point de vue là. dañuy jàpp ni. Mhm. lépp li nga xam ne moo di média comme ni ñu koy waxee kii fee far kee la far far mais on se demande on se pose la question ndax ki ñuy jiñ far fii wala far fële xanaa média privé bi kese la pourquoi les médias publics sont épargnés de ces critiques sont écartés de cette critique si que le média public c'est l'argent du contribuable lañ koy jox. moom lañ koy woteel jox ko di ko jox yeneen i ndàmpaay te loolu si alalu askan wi la jóge te lu jóge si alalu askan bi ñëpp ko ñëpp ko bokk te média public yi au Sénégal depuis Senghor ba léegi defe naa ne benn pàcc moo fay jàll pàcc bi fay jàll mooy parti bi nga xam ne moo nekk au pouvoir mooy coalition bi nga xam moo nekk au pouvoir te tey jii bu ñu respecté woon laa loi de 81 modifiée je pense en 91 on aurait eu une pluralité de présence si li nga xam moom moo di média public yi te pourtant média public yi booy xool régime bu ñëw opposition amu fa baat amu fa jaar-jaar mhm. te pourtant lu tax duñ si bàyyi xel ça c'est le premier élément le deuxième élément moo di tey booy xool dans les dans les quotidiens les journaux lii nga xam ne moo di wàllu privé groupe Sud Communication moo fi jiitu te c'est dans les années 94 bien sûr en dehors du journal bi nga xam ne moo fi jiitu venu ensuite vient est venue la radio da ngay gis ni média privé yàggu fi yàgg goo xam ne. Mhm. aujourd'hui am na lu ñu koy mën a gisee. te encore que bu ñëwee ba ci rajo au Sénégal sut euh, jiitu fi. Mhm. ak euh, yeneen ñu topp ci après demi yeneen ñi ñëw ba jamono yeneen ñi ñëw. aujourd'hui on ne peut pas parler de contenu radiophonique ba pare di référé wu strictement si par exemple ñu fi nekkoon. Mhm. mais ñu fi nekkoon dañoo bàyyi seen waar te dañoo nekk suñu ay références nekk suñuy idole mais jamono tam bu ñu fiy nekk bul fàtte ni benn média moo fi nekkoon donc ràññeeku bi jamono jooju gënoon naa yomb que jamono ji ñu toll. encore une fois contexte yi bokkul. Mhm. quand tu dis que les contextes ne changent pas non les contextes ont beaucoup changé et les contextes ont beaucoup évolué du point de vue de l'approche par rapport la pratique journalistique. dontele li ngay wax ni si wàllu orthodoxie comportementale ak valeur yi nga xam ne ñu ko doon prôné façon na fa lool mais ba jamono ji tembe ay nit ñi ngi si médias yi nekk ndaw nekk xaw a mage wala nekk leneen nekk ancien di prôner des valeurs yoo xam ne c'est des valeurs qui répondent à l'orthodoxie à tous les niveaux à toutes les échelles mm-hmm. te encore que une radio c'est un contenu mm-hmm. c'est des programme la animateur bi di liggéey dans dans dans un programme de rajo bokkul ak li nga xam moom la rédaction bi di liggéey la rédaction c'est la collecte et le traitement de l'information et la collecte et le traitement de l'information dans nos radios se fo se fait de la manière la plus professionnelle mm-hmm. amuñu xaaj amuñu seen mm-hmm. saay bu nguur xewlee saay bu institution xewlee saay bu gouvernement xewlee saay bu président xewle saay bu opposition xewle saay bu société civile xewle saay bu association xewle saay bu mouvement xewle les radios font tout partant de la rédaction et par rapport au dispatching fait dem def li nga xamul de la couverture ba pare traiter l'information et je pense que say édition yi ngay présenté yow sa wàllu bopp xadi colonel mm. c'est une pluralité d'information donc bokkul ak ki nga xam ne moom dafa ñëw pour andi musique bokkul ak ki nga xam ne dafa ñëw andi pour cosaan ak aada bokkul ak keneen ki nga xam ne dafa andi leneen si wàllu rubrique jëm si wàllu programme c'est un tout mais le tout est incarné par une rédaction composée de professionnels de l'information et de la communication mm-hmm. je pense que loolu tamit il faut mu clair ba nga xam ne aujourd'hui on ne peut pas dire rajo bi fii la far wala kee fee la far c'est le traitement équitable de l'information te de ce point de vue là je me pose la question de savoir ndaxam le CNRA bi nga xam ne waratul exister qui est illégitime aujourd'hui moom dafay nekk pour réguler uniquement les médias privés mhm. pourquoi le CNRA ne régule que les médias privés et ne s'oriente pas également au niveau justement de de du du du des, des médias des médias publics de ce point de vue là dafa naa ni doon na am sax li nga xam ne mooy le jeu d'équilibre mhm. parce que bou fekkee ne loi bu ñuy respecté code de la presse bu ñuy respecté mhm. contenu bu ñuy respecté à travers le traitement de l'information j'allais dire des informations ce sont les médias privés qui joue le véritablement le véritable rôle d'équilibre de l'information contrairement aux médias aux médias aux médias publics parce que médias publics yi benn pàcc rek moo fay feeñ l'autre élément moo di bu ñu ñëwee tey ji nii si li nga xam ne moo dal mhm. seen TV dalaat ko dal ko dal Walfadjri dalaat Walfadjri damay jàpp ni en réalité booy xoolee ni en fait da ngay gis ni foofu loi bu ñuy wax ne moom la ñu invoqué y une violence violence une violation système systématique et systémique véritablement de la loi parce que Ibrahima lu mu ndaw ndaw ndaw rajo ko télé laata nga kaa tëj di nga ko yóo di nga ko yónnee sax bataaxal boo xam ne mise en demeure la mise en demeure waaye si si woote ak damay tëj damay couper sa signal ba pare joxe ndigal tëj signal defe naa euh, loolu war nañ ko kii parce que tey jii bu fekkee ni moom CNRA mi ngi convoqué code de la presse code de la presse reconnaîtreul li nga xam mu di CNRA code de la presse arca jamono ji la reconnaître mooy haute autorité de régulation de l'audiovisuel kon dans le nouveau code de la presse le CNRA n'existe plus donc le CNRA est-ce que amati vocation à véritablement jouer le rôle de gendarme et véritablement gendarme bi muy def te loo xam ne tegu ko ci si loo xam ne tegu ko ci yoon mm-hmm. mais jàpp nag au nom de la liberté de la presse et non de la liberté d'informer je suis entre et 2012 il y a eu combien de manifestations mm -hmm. le 23 juin devant les, les grilles de l'Assemblée quelles sont quelle la radio ou la télévision boo xam ne mhm. wanewu ko en toute la journée direct je pose la question na ban rajo benn télé moo ko génnewul direct toute la journée du matin ba guddi mhm. le 27 juin 2011 les émetteurs de l'électricité amul ndakaaru koñ bu tàkkut mhm. amul ndakaaru koñ bu yënguwul amul fenn laa wax foo xam ne échappé na te pourtant rajo yi télé yi dañ ko diffuser en direct ba mu tàmbalee ba ba mu jeex donc quelle est la différence aujourd'hui par rapport ak li nga xam ne mooy manifestation am journaliste bi dem pour la collecte de l'information bu dee télé nga mhm. image nga war a mën a wane bu dee rajo nga direct nga wan a def bu dee presse écrite la nous attendrons de traiter l'information le lendemain ñëpp xool ko lire ko gis ko et de ce point de vue là on comprend aisément mm -hmm. donc qu'est-ce qui changer en Ukraine guerre moo fa am ñu koy wane on monte pas tous les dex. Afghanistan guerre fa am euh, euh, euh, dafa amoon dañ koy wane. guerre Irak c'était retransmis en direct la guerre en Irak su Saddam Hussein. Mm-hmm. je rappelle que les manifestations des gilets jaunes manifestation très violentes ay ay nit ñàkk nañ ci bët ay ñàkk nañ si loxo. Mm-hmm. am nañu ay séquelles yu garaaw. Mm-hmm. ay toj ay taal ay lakk. c'était montré en direct par les chaînes françaises. C'est clair. alors de ce point de vue je pose la question de savoir. lan moo xew ba ñu ne au Sénégal non manifestation bu amee non kenn amul droit yu ne wane ko parce que incitation à la violence la no c'est le droit d'informer et le le citoyen c'est son droit de s'informer pour xam li xew. parce que itam daf see bokk waaye. comme ni ñu koy waxee am na loo xam ne doo fa yegg bu fekkoon ni da nga ko gis image amaana mais lépp loo xam ne xew-xew la dafa naan rôle média yi nag mooy wane ko.